daara ji ak oustaz Souleymane Diaw oustaz euh, wax nga ne euh, depuis bële passé tàmbale nga ko sujet boobu di makaarimal axlaa muy mhm. rafet jikko nga mhm. wax ci wàllu tuuma mhm. wax tamit ci wàllu sosal waaw euh, muy sujet bu intéressant boo xamante ne. Euh, mhm. boo ko waxee euh, donc dina làmb yu bari. Mhm. te loo ci wax du du doy comme ni nga ko mhm. waxoon. wallaay wallaay suite bi di am ñu bàyyi la nga. waaw jërëjëf soxna Fatou Diouf xam naa ñun suñu campagne tàmbali na. ndax campagne bi mooy makaarimul axlaaq. moom la ñuy campagne incha allah xam ragal naa ba élection yi jeex moom duñ génn makaarimul axlaaq. sujet boobu rek ci ne. parce que tëdd nga jikko. mooy problème mu gars maa maanaam jikko ju rafet. waaw dafa baax ci doomu aadama. dëgg la doomu aadama da gis ku sañse lu rafet. xam nga hmm. sànq yaa ngi sànni xeer maa ngi Mouhamed. waaw ci sañse yi. waaw xaw ma yow la xaw ma maamu. <laughs> waaye nit dina sañse lu rafet. Uh-huh. waaye jukkoom du rafet. dëgg la waaw. nit dina sol lu rafet soxna Fatou. Mm-hmm. waaye jukkoom du rafet. dëkk la. te bu fekkente ni référence bi ñuy roy. Mm-hmm. jullit dafa war a xam kan lay roy. dëgg royloowuñu paate royloowuñu sàmba royloowuñu demba mhm. kenn dong la ñu royloo mhm. mooy sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam mhm. faatu kooku la ñu war a roy kooku la war a defar référence waaye kooku tam faatu mooy suñu repère bu ñu jaaxlee dama dem ba àdduna jaxasoo yonent bi bi mu nekkee ci tartaru feebar fi aalatil alami dafa wax ni taraktu fiikum amrayni maa tamasaktum bihimaa lan tadiloo kitaaballahi wa sunnati bàyyi naa leen bàyyi naa leen ak ñaar ñaar yooyu heure bu ngeen ci téewee jàpp ci du ngeen réer du ngeen juum ñaar yooyu lan la bi ñu njëkk mooy alxuraanul karim mooy téere bi mu fi baax mm-hmm. Mm-hmm. beneen bi mu ni sama sunna mm-hmm. ñun nag ñu war a góorgóorlu ci ñaar yooyu kon lu lu la jaaxal rek ay euh, faatu ne lan la ci alxuraan wax ba pare. Oh. boo bëggee noppalu. Mm-hmm. lu la jaaxal ne lan la ci alxuraanul karim wax. ba pare balaa ngay jël sa xalaatu bopp laajal li ci alxuraan wax. boo paree nga ni waa lii bi mu xewee yonent bi alayhi salaatu wa ban jëf la ci jëf moom. kon boo laajte li alxuraan wax. laajte li ci yonent bi jëfoon yow libéré wu nga. yow léegi di nga xam foo teg sa tànk foo teg sa tànk. léegi nag li des ci jamono nag yaay xam nooy tojee sa bopp jinax. keroog ñu tomboon ci lu doy waar bari senegal mooy tuuma. te makaarimul axlaaq yonent bi bu fekkente ni da nga koy roy ci tedd nga jukkoom boobu. dafa wax ni bu astu li utam bi ma makaarimal làq dañ maa yónni ngir naa matale naa mottali tedd ngay jikko yi moo tax fa soxna Faatu nit war a yor jikko ju baax bokk na ci nag li mu am te amuñu ko mooy yi salte yi ne ci ñun moom nekkul ci moom dara newul ci moom déedéet Faatu doomu aadama dafa yor jikko yu sew doomu aadama dafa yor jikko yu salte doomu aadama dafa yor jikko yu tilim doomu aadama dafa yor jikko yoo xam ni lislaam rafetluwul jikko yooyu banqal mm-hmm. soxna Faatu fen mm-hmm. lu ko gën a garaaw yàlla bind ko fen fen te soxna Faatu ñun ci lañuy xëy di ci añ di ci reer di ci ndekki. dañ koo banaliser sax. parce am na ñoo xam ne jàppuñ ne sax euh, àgg na foo xamante ne yàlla noonu la ko répudier. merci beaucoup xalaatee wuñ ko noonu. kon soxna Fatou fenn garaaw na wala ba garaawul. Ah, garaaw na trop man li ma dégg si woon. Euh, fen deuxièmement mm-hmm. jëw jëw dégg nga atte bi ci lislaamaate ni jëw garaawe ay yuhibbu ahadukum ay yàqula laxma axi la alxuraan wax ñun ñooy rafetal rek di raayal mais koo bokkal benn baay wala nga bokkal moom benn yaay koo bokkal benn baay wala nga bokkal moom benn yaay la wax nga misiwu ko yow yaa ko misiwu <laughs> loolu alxuraan wax de koo bokkal benn baay wala nga bokkal moom ndey ak baay wala nga bokkal moom benn yaay ko alxuraan wax ni yow nga misiw kooku misiw ko jël jël mu tàdd jël paaka jàppati di daggati di lekk sa doomu baay boobu wala sa doomu ndey boobu loolooy jëw waaw loolooy jëw ñun nag dañ koy añee di ko reere di ko ndekkee beneen bi mooy ràmbaaj hmm. yooyu bu ñu fi bëggee lim fii la ñuy fanaan pour wax la jikko yu salte yu ñaaw yooyu. soxna euh, Fatou mbaa yëg nga ni. soixante-dix njaaloo moo tolloog benn fen. mais déggoo ma soxna Fatou. de. waaw sax damal ci téere bi ñuy wax duratu naa si xëy na. nga liir nga liir rek bañ a taayal. di nga dem ñu wax la ñu yonent bi ni soixante-dix njaaloo ngay njaaloo quartier bu ne nga njaaloo fa ak benn jigéen ba muy soixante-dix quartier. njaaloo la wax de jigéen joo takkul. waaw moo tolloo xale bi kaay mu ñëw nga ne ko demal ci boutique bi boo ñëwee naa la may bonbon mu ñëw mayoo ko bonbon. Mhm. waaw fekk nii ngan gi kon moom nan la ñu toll. <laughs> loolu rek comme ça ma may la lii ah mooy diggaate ah, kon ah di nga ko dig te woo ko dëgg da fen. kon dig bi ko dëgg kon fen la dig dig nit dinañu ah, ba kay dig ci ñëw. dig nit ba pare te li nga ko dig dara du ca kon fen nga. kon ne kon bëri na kon. merci beaucoup. kon loolu est-ce que makaarimul axlaaq la est-ce que loolu tedd ngay jikko la est-ce que looloo taxoon yàlla yónni yónent bi alayhi salaatu wasalaam jikko jooju yàlla dafa yónni yónent bi pour loolee na ba mu set moo tax sama maam Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu bi du ñun waaye du nu moom waaye dañ ko war a roy ah, faatu dafa wax ni wa baada shahrayni wa baada aameyni wa shahrayni suqaloo sadru nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu amee ñaari at. Mm. sëñ Saliou yu tegal ñaari weer ci lañu def benn opération xar dënd bi. Mm. bu ko yàlla yónnee defal nañ ko opération. bu yàlla woowee mu rañaan defal nañ ko opération. Mm. wa fil baasi wal israel bi ko yàlla yónnee mu am 40 ans moom yonent bi salaasa deux ans deux mois opération 40 ans. opération yàlla yo woo ko rek mu reñaane ji opération. mooy ñetti opération yoo xam ne defal nañ ko mais lan la ñu génne ci moom mooy jikko yi ma lay wax. Hmm. kon naturellement nit ki day am loolu. kon naturellement nit ki da koy am. mais su la dabee waaw su la dabee. nga royu yonent bi. sallallahu alayhi wa doon naa fen daaw 2023. Hmm. Hmm. fen naa 10 fen. 2024 kay 4 nga war a fen. wala 3. 2025 2. deux mille vingt six moom benn deux mille vingt sept fen war naa jeex ci yow est que dégg nga ma. waaw yonent bi la ñuy roy te loolu daa jaxasoo dafa jaxasoo ñun. Mm-hmm. kon jikko yooyu foog ñu da am ci luñ ci war def bokk na ci li indi ñu tuumal Aysatu fen fen Aysatu li ñu ko tuumaalee bu la bul coow li gudd. Mm-hmm. fen moo tax ñu tuumaal ko. Mm-hmm. nee naa la saaba bi ñu ko tuumaal mi ngi tudd Safwaan ibnu Muxtal. moom lañ tuumaal te tuuma bi li tax mu doy waar mooy amuñu ku ñuy tuumaal ki dul ki yonent bi ni xudu nisu diinakum inda aydil xumayra dem leen jëli seen genn wàllu diine ci ndaw sa xonq see mooy sayyidatuna Aïcha kookoo demoon ba raw saaba yépp raw góor ñépp li mu mokkal kenn mokkalo ko li ko yonent bi dee déewu ko kenn moom sayyidatuna Aïcha mm-hmm. xoolal loolu mm-hmm. te pourtant moom la ñu tuumaaloon ma dama ci suratu nuur yàlla di wax ni inna alladina yuhibuuna an tashia al faaishata fi alladina amanu lahum azabun alimun moo tax ay moo tax moo tax loolu nag bu duggee rek presse dugg na mm-hmm. ah an tashia al faaishata mooy siiwal lu ñaaw siiwal lu ñaaw mm-hmm. jamono ji ñu toll campagne bi na mm-hmm. dinañ ko def ndékki dinañ ko def añ dinañ ko def reer di ko siwalante sunu biir di ko sànnante xeer sunu biir di ko def sabotage di ko yàqante der mm, avant boobu sax am na parce que vilipande bi ci léegi yëpp ci biti lay génn ñëpp a koy yëg lu war a xew ci vilipande yëpp da nga koy gis euh, ci net bi waaw jot ci waaw alors waroon na yem fenn waaw xam li doy waar ci loolu li tax suñu borom moo tax moo tax politique ñu war cee def ñu war cee teey mm-hmm. li doy waar mooy téem sa mbokkum jullit sàmm ko ci benn journal yàq deram ba mu ba ba ba tekkeetul dara maam maam téye nit di wax ci moom di wax ci moom yàq deram ay faatu ba kooku tekkeetul dara dara ci Sénégal ñaata doomu aadama lañ ko def loo wax ñu ni vaar xoolal loolu xoolal lu loolu loo wax rek ah vaar vaar waaw vaar loo wax ñu ni vaar te kat vaar programme yàlla la de kon vaar boobu waruñ koo def daal di koy du koy jullit mais su fekkee ne tamit euh, oustaz nit ki moo waxoon. waaw waxeet maanaam tey mu wax lii. Mhm. mais le lendemain mu waxaat lu contraire. waaw. benn instant tamit parce que mun nañ accuser trop trop ñi nga xamante ne ñoo ko faal parce que moom moo ko teg boppam au lieu bi mu doon toog ci plateau di wax mu maandu. Mhm. wax d'une manière correcte bañ a def ji moom moo ëppale ñëpp xam-xam. Mhm. mu xëy changé wax. ñu koy tiiñal waaw euh, xam nga tiiñal ci li mu waxoon. waaw xam nga mag mu fen. ma dafa moo tooñ boppam ñu ne ko yaa tooñ sa bopp ya yaa waxoon. waaw xam nga mag mu fen <laughs> mag mu hmm. mag mu jaay boppam. Mhm. weer boppam parce que boo gisee. dafa am jikko yoo xamante ni dafa am jikko yoo xamante ni bakkaar bi duñ ko bindal faatu duñ ko bindal Souleymane maamu mi ko def lañ koy bindal loolu tax l'islam civilisé. Mhm. ak lu bakkaar bi rëy rëy rëy ak foo ko waxee noo ko waxee yow mi ko def rek yaay gàddu bakkaar bi. Mhm. yow mi ko def rek. Ah, yow mi ko parce que yaa def bakkaar bi. d'accord mais ki ko def daal pour yow kon ko kenn du ko amul benn ki ko def daal moom moo am bakkaar. mi moo am bakkaar nit ki. waaw. di moom mi nga xam ne moo moo kàccoon kàcc bi ba ñu jël ko siiwal ko siiwal boobu mu def moo baaxul moom mi ko siiwal moom waxoon na ñëpp déggal ko pare dégg ko ba pare fu mu toogaat mu ñu wax ko ko baaraat ko fa loolu est-ce ñu ko waaree chaque chaque jour looy dégg hmm. waa ji moo waxoon waaw waxeet waa yaa ngi dégg waa mais ki ko waar dañ naan def na jikko ñaaw parce que dafa siiwal lu ñaaw siwal na loo xamante ni day toroxal doomu aadama. islam bëggul loolu. yaa ngi dégg. Mhm. tey suñu borom boole naag waa ji ay malaaka yoo xam ne dara ump leen ñoom. Hmm. lépp gis leen ko. dinañu bëgg ñu bàyyi ko yàlla. di parce que ëllëg la lépp yi leer di. est-ce que tamit benn yow ma tubb la saraa'iru. suñu boroom ne la <laughs> bis baa am na benn télévision boo xam ne. waaw waaw waaw man dama bëgg ne va bi est-ce que du question tey misaal pour ñu ñu hmm? jàngaale ci leçon ni ëllëg yow ma xiyaama dinañ gis suñuy jëf fii ko tey jii nii technologie dafa dem ba avancé ak fa nga xamante ne peut-être euh, yaa di cela cent ans avant hmm? kenn xalaat woon ni ay vaar dana am hmm? est que tey jii nii duñ ci jàngaale lu bëri nii ah. euh, yàlla suñu borom maanaam yomb na ci moom ju yow ma xiyaama mu tegal ñu lépp la nga xamante ne def nañ ko yàlla nee bu yowmal xiyaamee mboolem lu nit mësa wow ma tëseedu alayhim bi alsinatihim foofu kon mooy vaar bu mag bi daal mu lu ma la wax boobu laa tuddee RTA rajo télévision bu àllaaxira souvent moom laay wax boo fa demee suñu borom dina leeral lépp loo mës a wax lépp loo mës a dox lépp loo mës a jëf am na ñoo xam ne seen jëf leeragul ba tey nit ñaa ngi coow nii la demee woon de maître Babacar Seye leer na. non leerul ba tey. ah ngeen foog ni dossier boobu day day dem ci tiroir yi loolu ngeen foog. am na ku ko rey boo lëggee suñu borom dina ko teg de. dina teg dossier boobu dossier maître Babacar Seye boobu yàlla dina ko teg ba mu leer nañ. bëri na ci ay dossier classé ci ay meurtre yoo xamante ne ak yeneen da ngay gis ñu ne dossier classé ay coow. ah dossier classé waaw waaw dossier yooyu. waaw ci justice gis nga bi ko ko gaa yi def. Hmm. malaaka yi jël nañ ko bu yàgg ñoom téye ko. ya ca am sax mhm. ya am sax boo demee tribunal mën nañu ko bañ a xam secret mbóot yoo xam ne mën naa bañ a feeñ ci dossier bi waaye suñu borom dina leeral lépp moo tax looy wax nit nag ko xam Mohamed mhm. looy def ci nit na ko xam looy jëf ci nit na nga ko xam tôt ou tard mhm. kii juge ñëpp dina dina dina leeral daf ci am loo xam ni nag soxna euh, euh, euh, Fatou dafa ñaaw xam nga tey ñu ngi waaj dëng dëngmal campagne looy wax gars yi lu ñuy wax programme bu ñu teg Hmm? di teg di jox nit ñi ay promesse su ma falo nii su ma néewee nii su ma néewee naa. mais xam nga bu garaaw te nar a am ren xam may mooy ban. mooy bi nga xam ne dañ koo calculer ci deuxième tour bi. Hmm. c'est-à-dire. <laughs> cest à jëm nii nii. waa du bu premier tour de. ah bon loolu nga gis non bi ñu jëm du bu sama xalaat sama gis-gis waaw sa xalaat waaw ah, du bu mhm. premier tour de. du premier tour élection deuxième tour la yii ma gis man. ci sama hmm. xalaat. loolu laa ko jàpp loolu nga gis. waaw hmm. li tax nag. Hmm. mu doy waar. mooy après ci li ñuy xam ñan ñooy gor ñi ñu dul gor ñi yàgg élection de moom yàgg naa wane ay. Uh-huh. ah ci xam nag. dëgg ñan ñooy gor ñi ñu dul xam nga lu tax. Baye Sakho da daan wax naan bu ëllëgee yowmal xiyaam ku lay tiitaru. ci àdduna di la wan ne maay gor gi doo gor gi. nee na bàyyil ba yowmal xiyaam. nga jàpp ci loxoom ni ko maa ngi jëm aljana ko tiitaru du woon démb waaye tiitaru tey ji la woon. dina ci bari yoo xam ni. bari na koo daan dégg muy wax. bari na koo daan dégg muy wax nga jàpp ne li nekk ci xam nga li gën a doy waar ci sunu sunu Sénégal bi. ci côté bii nga xam ne du makaarimul axlaaq du tedd nga jóge mooy baat bi ñu tuddee transhumance. transhumance waaw. Ah, dafa dangereux trop. nit waru transhumé. déedéet ku am valeur. Ah, transhumance moom ci kii lañ ko doon jàpp boo yoree eh, koy waxee. Mhm. Euh, éleveur. waaw euh, ay mhm. kii mat. waaw ci feneen lañ ko doon séentoo. waaw xam nga li doy waar xam nga li doy waar moo léegi. Mhm. xam nga lu doy waar. ànd ak Fatou Diouf Faye. man Souleymane. waaw. tuddee doom Fatou Diouf man. ànd ak moom fu ne. Fatou jël ma. yaakaaru àddunaam yëpp programme am ci wàllu politique. Fatou jël ko confier ma ko. wax ma ko boo xam ne secret famille gars yi daf leen daan ci ànd yi de tey leen ci ànd yi wax ma secret ba ma xam ci moom lu ne ma jël sama doom tuddee ko doom politique yi xam nga lañoo bari. xam nga ci loolu. doom yi yi doom yi nga xam ni politique a tax. ñu tudd leen doom ñooñu seen papa amel nañu seen amel nañu leen àq. ñu tuddee. parce que du woon dëgg. politique a taxoon nga jël sa doom romb fi sa papa romb fi sa nijaay romb fi sa umpaañ romb fi ñi nga bokkal deret tuddoo leen doom. mais oustaz nga dem tuddee ko koo xam ne politique rek tax nga tuddee ko. oustaz bëgg naa tamit bana xam nga xam nga doomu mhm. ñu tuddee euh, benn homme politique seen doom. parce que mhm. dañ ko bëgg am cofeel ci moom. Mhm. maanaam xaar ñu dara ci moom. xaar ñu mu ñëw ci génte gi jox leen ay millions. wala ay milliards parce que dañoo am benn cofeel ci moom rek daal di ko tuddee. côté bu maanaam li nga wax am na am na ñi nga xamante ne moom intéret moo tax it. ñi tuddee seen doom benn homme politique. mais y des gens aussi. cofeel bi ñu am ci moom. moo tax ñu mm-hmm. koy tuddee. maam je crois bien que li ma wax aussi. nangu nga ko bu dee bii nga wax. Mm-hmm. mooy bu baax bi. Mm-hmm. bi nga wax amul benn problème. parce que ki ko def da ko def naturellement. te yàlla tax. ut ci benn intérêt. am nañ suñu benn frère. dafa dañoo toog ba bay waay tudd Mouhamed. 30 minutes avant ñu tudd. <laughs> man ci laa am information comme sama mbokk la te jege na loolu. waaw ci laa am information ni moom. dafa am ku mu nar tuddee doom ji. te ñun suñu famille. loolu xewul fa Mohamed. déedéet premièrement sax boo amee sax doom doo am sañ sañ tuddee ko ki la neex sa yaay mooy xool ki ko neex. waaw loolu bari na ci waaye comme suñu beneen kër la te ñu ñëpp benn deret ji la. Mhm. man bu ma ko yëgee. moom ci jëm boppam laa awoo ci ruq moom moom moom mi nga xam ne moom moom doomam ma ne ko ne la leen yaa ngi kereel yaa ngi def loo xam ni bàyyi xel ni après yow rek yaa ko def kenn musu koo def ci famille bi yow loolu yow la man loolu laa amoon kàddu bi mu lay wax fekk na suñu beneen kilifa waxtaan na wax naa moom teg ko ci yoon orienté ko mais bi mu ko orienté heureusement yàlla dimbali ko Mouhamed mu am mu am modeste bu wàcc ñu tegaat lépp ci raay waroo ko tuddee doom Mouhamed ngir tudd gi nga koy tuddee intérêt personnel moo tax nga koy tuddee yooyu nag xew ci seen biir ba pare yooyu xew ci seen biir ba pare nga jël décision gis nga nga jël décision yow bis jot rek nga def benn déclaration faatu mi ma doon àndal day euh, gis naa xool naa bi ma xoolee sama bopp wax seeni wax yooyu wëlbati ko tourné ko dégagé ko ba pare yow da seet wécc quoi yow sa waat sa faatu neeratu la maamu daal moo ma doy li ma gis ci moom maa ko xam politique politique la yow daal di ngay dem ànd ak maam bu ëllëgee li ma jaaxal man même Souleymane man maa ngi bàyyiwaat maamu daan ni maa ngi teel a gis. sëñ Sall waaw loolu amul droit def ko xanaa mu bañ a yàq deram mais amoo droit génne na kii mënutuma ànd ak dem mais sans pour autant nga nga yàq deram wala. c'est ça. waaw mais mën nga mën nga limité wu ci ne. mën nga limité wu ci moom. waaw mën nga limité wu ci moom. Mhm. te te sooy dugg ci moom it leeralal lu tax nga dugg ci moom. Mhm. mais jàpp dama ni ànd ak nit ba ci yàlla war nit ki xam nga naafeq li tax mu day waar xam nga ko yow xam nga loolu naa fekk doy waar. xam nga yonent bi alayhi salaatu wa moo ñuy jàngal. daf ñuy wax ni. melokaanu naafeq déglu nag li ma lay nettali. ak politique bi am Sénégal ndax am nañu am na rek lu lu lu ci lu ci lu ci wute. yonent bi alayhi salaatu wa dafa wax ni. melokaanu naafeq la yonent bi wax. melokaan bi. waaw waaw. Mhm. melokaan bi rek. Mm-hmm. yonent bi ni defal xool ko. waaw. isa xaddasa kazaba mooy naafiq. Mm-hmm. alayhi salaatu wasalaam nee na. Mm-hmm. lépp lu mu wax ak yow dafay fen. déjà fenkat la. merci du wax dëgg. wala xool fu mu dugg lépp lu mu wax ak yow. yaa am confiance ci moom mais dafay fen te am ñoo xam ne faatu fen ni mu leen jegee ak ni mu leen yombee. facilité gi ñu am man Souleymane daf ma yéen. mais li ngay wax yëpp ëmb na daa mel ni oustaz Souleymane. ci wàllu politique politique booy wax lu vertu lu am vertu. waaw lu baax moom Mohamed islaam daa mel ni dañoo xaajaloo complètement parce bu dee wàllu fen waaw ko fay fekk. waaw bu dee comme euh, li nga wax ci wàllu. Euh, yaay wax ne en tant que journaliste. yaay wax de parce que moom laa constaté. moo ci am. waaw bu dee euh, kii war war yooyu yëpp nga fa. waaw moom daal dafa àndu tat neen na loo xamante ne politique teg na feebar lii mhm. feebar bi du feebaru politicien. Mhm. feebaru sénégalais yi la ba pare. Mhm. parce que politiciens yi benn parti lañ ci biir dëkk bi. ci nit ñi. ñun la suñuy jikko yàqu. ñun ñëpp. Mm-hmm. ñu war a defar suñuy jikko mm-hmm. bu ñu defaroo rek bu politiciens yi génnee dana ñu baax mm-hmm. bu enseignants yi génnee ñu baax bu éducateurs yi génnee dana ñu baax bu keneen ak keneen dana génnee dana baax mais suñu problème mooy ñun nit ñi di manière générale ñun la suñuy jikko yàqu ba pare parce que politicien bi du étranger Mm-hmm. ci ñun la bokk. Mm-hmm. jikkoom dafa yàqoo ci ñun moo tax bu demee ci géewu politique ba. Mm-hmm. jikko ju yàqu ji mu am. moom la fa yóbbu léegi nag solution bi kii war a indi mooy defar jikko yooyu ba pare. bala ngay nekk un politicien waaw kay très bien xam nga kon. gis nga ni mu dellusee directement ci makaarimul axlaaq kon pour nga yónni ay yónent bi. da defar sa jikko. mais fi fi fi fi usine bi yàqoo. boo ko xamul doo xam maladie bi. ban garab nga war a utiliser pour faj ko. moo tax mu ne la naa fekk day fen yonent bi alayhi salaatu wa salaam Muhammad a ngi nii. sëñ Saliou a ngi nii. dafa ne ñaar bu ñu yàqoo réew yàqu. ñaar la yonent bi dessiné. nee na lu ñu yàqu ci àdduna ñoom ñoo ko yàq. ñu ni ko kan ak kan mu ne les politiciens et mu ni et les chefs religieux. chefs religieux. loolu wax. sin faani min ummati ida fasadu fasadul kull al umara wal fuqaha lii la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax waa léegi est ce que ñooñu war ñoo ànd ci bakkan dañuy ànd ci intérêt société bi d'accord mais waruñoo ànd ci intérêt yi d'accord bakkan Adja euh, Fatou kon nag loolu lañ ciy gisee uh-huh. njàngat boobu lañ ci am bari na ay nuqta yu yoo xamante ni am na ci waaw mm-hmm. Souleymane nga mm-hmm. baal ma tuuti rek mm-hmm. cest à baat bi mu mujjee wax parce que xam nga Sénégal ni ñuy déggee dafa xaw a doy waar saa à dire bu tuddee chef religieux. Mhm. dafay am fu ñu ko askanale. Mhm. te yonent bi c'est-à-dire seetewul. Mhm. acteur religieux borom xam-xam rek la wax. borom xam-xam. al fuqaha mooy koo xam borom xam-xam nga. ba pare jël sa xam-xam koo safaar. waaw chef religieux bu ko xam nga tey xam effectivement li mu wax lu wér boo nee chef religieux. waaw l'islam fépp fu borom xam-xam la. nekk la chef la. dëgg la. boo waxee chef religieux. ñu jàpp ni tarixe yi. waaw loolu tax te loolu taxu ñu wax. dans le cadre général laa wax. ñu waxee loolu rek. ustaas bi ci bi chef religieux la. képp kuy borom xam-xam la kuy borom xam-xam chef religieux la waaw. imam bi ci koñ chef religieux la. bul jàpp ne borom tere déedéet. képp koo xam ne am nga kàddu. l'islam wax loolu jox la cër. yaa ngi ci biir l'islam nag ni la defaral. boo yàqoo société yàqu. Sénégalais yi nag boo xeeloo rek seen xel ci loolu lay jëm. nañ génn foofu nag cadre boobu dañ koo xoolal. Ah. tënk nit ñi nag nañ ko baax. dëgg la nit da ngay waxee dans le cadre général mais bu ñu tënkee. Mm-hmm. bu ñu la chevaliser rek nga jàpp ni ah dégg tarixa sàngam ma tax di wax. déedéet am na ñoo xamante ni du xoola ay kilifa lañu. dëgg ñu ngi yor ay daara feneen ak feneen ak feneen. d'accord mais booy wax ci kàddu ñu lay xoolee l'islam ba a nga bëgg a waxee bakkan. d'accord def nga lu yonent bi alayhi salaam am na solo en tout solo ñu mu ngi noonu yàlla yàlla def jàmm. ñu laar yàlla sàmm ñëpp. macha allah amiin la ñuy indi woon tey. jërëjëf am ñu dem léegi ci rubrique euh, royukaay ànd ceeg euh, léegi euh, suñu invité. thank you